nuy naa ñëpp fii laay tàmbale yéen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan ma la li xew ci réew mi askanu sunu gaal gi libération la mu indi mu xewee ca kër Masaara yéeme te doy waar ñaari waxambaane yi lanu def doy na waar ubbil yéene kaay bi ñoom daal lijjanti nañ kurkuri ba am seen ndaw soo xamante ne xel ma neexul ndaw si wéerul tee ko ci ab ruq ne ca moom saa su seen xel mi nekk ci séeg moom nu séeg moom yëgle kaay bi ne ñu transformé ko obs sexuel di ko ña ngi leen jàppee fa nga suufuf autopont ba tey yàlla fii la réew mi toll vox populi yëg la kaay ni ma lat xew ca lingeer itam yéema na te doy waar ay samba booy di ay sàcc doon sàcc fa lingeer yëg bi ne ba rey fa ab commerçant blessé fa mbay na ki gaam daal di faat ki nga mi cëb dëkkam ci jàkka joo xamante moom la doon tabax ca wetu daaraam ngir di fa jullee ginnaaw ba nu ko teree ni ko doo julli ci jumaa ju mag ji yëgle bi ne basiru mbay doon daw coow ndax bu ne day tabax li nga xam ne moo di jàkkaam ji yëglekaay bi ne fa la ko gaañu fekk daal di koo boom imaam Mor Mbay mi jëf-jëf ju ñaaw ji faat ko yëglekaay bi ne ak ñamu àndaloon bu nu wàttuwul dinañ tëdd kaso seen giirug dun ñu leen di toppee faat nit waaye faat nit gu doy waar fii la réew mi toll l'observateur yëglekaay li ma wax itam yéeme ne te doy waar waa ji de xuma daa fiir xuma lu ko dal waaye yóbbu na noppam xaritam bi la waral sabab mu la kaay ma la ko ma ni xanaa ñaaw njort ci digganteem ak soxnaam képp rekk dong deeni soxnaam yëglekaay bi ne mu daal di les noppam xaritam bi ni ko tëppit ma ni la fii la réew mi toll le ma ña nga doon góorgóorlu di xëy di lu nu am ngir yóbbu seen kër ay waay ngir lu ñu ne ñoo faatu ca usine ba ca njaareem ñoom ñaar ya nga xamante ne ñoo ca faatoo ñu ngi leen di wooye ay journalier maanaam bu nu xëy nu fay leen 3000 francs moo taxoon xëy goberi jaas yëglekaay bi ne far nu faatu ca mi toll université ba laa coupé nañ leen li nga xam ni moo di am ndox ndax lànk lañu def ba kandaar ci bañ a fay facture ko yëglekaay ni xamante ni daa jël ka nga xam ni moo di ab ex employé am yoon ndax wàllum diffamation cey réew mi ni may waa poste ngay nërmeelu nag poste ngay daanu mani lu tolloo 4500 employés lañu yóbbu ca dem chômage ñu dàq leen Thiès info yëglekaay ma poste sub Thiès kaay de ay bés yi ñu génn saa su nekk laa la wax ña nga xamante ni ñoo fa war a fay koy salaire rang la ñuy def laa la wax suba ba ngoon jot ngir seeni salaire am ca ñooñ sax nee toog nañ lu tolloog juróom benn weer jotuñu seeni salaire l'observateur yëglekaay ni ma ciy réew mi ma ni dund gu cher gi dëjël witti ñi nga xamante ñoo di góorgóorlu yi yëglekaay bi nee prix loyer bi nga xamante moom la ñu yokk nag wàllum loas 38 pour cent ñoom ñakaa seq nag ña ngay waxtaan ngir fii ak premier janvier gii nu jëm nu wàññe wàññi bu baax a baax wàllum loyer bi jafe-jafe yi ci nekk mooy ki nga xamante moo di bailleur bi day bëgg dara courtier bi bëgg dara nu muy def ba du yokk revue de presse du jour ko xamle fii la réew mi toll de man war a luyee mbaa nu war koo jaay mu am fukki courtier réew mi daal war nañoo xoolaat ci njëgum ndund gi yëglekaay bi ne njëgum fourniture di wàllum a voter loi ak Faye mani njiitum réew meeg njabootam quotidien yëglekaay ni ma mani dogoo gi nga xamante ne moom la dogoo ak waa Benno Bokk yaakaar moom Mimi Touré jaarootuñu taal fi toll nii tembe nag Mimi Touré accélère la cadence ma ne Mimi ngi ñëw gamu daan dégg fi mu toll nii tembe dikk na dal ci kaw Macky Sall ak moom daal nee dafa war am loi bu ñëw ngir rek limité nomination yi nga xam ni moom la ñuy nommé jigéen ñaa lay président yi Les Échos yëglekaay ni ma moom kay Mimi freiné na ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njabootu président Macky ak bu première la mu fësal xamle ko moo Mimi Touré de la mu bëgg moo di écarté ñi sant Faye ak Sall eh waay di pouvoir la bëgg critique yëgle kaay ma ca dëgg-dëgg Mimi Touré xam ci lu mu lu ñaaw di yàq ngir nu taxaw lu mu man ci gàllankoor leen mi ngi koy def tey def luy jàppale président Macky Sall di Le ma kooko mandat bi ci réew mi moom day nee lu ñu man dinañ ko def ngir président Macky Sall def deuxième troisième bu juróomi at niki sunu lamb yëgle samp laajam di laaj ana la xeex bi arrangé ci diggante Papa Sow ak Siteu ñoom ñaar ñu war tase niki le novembre Jibril Kanji mi di woonu boxeur day nee Papa Sow ci jëmi boppam moo dàq xeex Siteu l'observateur yëgle ni ma méga face to face ba nga xam ni moo amoon ca Serano neex ba romb neex la def Balla Gaye 2 Boy Niang Sa Thiès Reug yëngal nanu ko ba mu yëngu njabootug du gi yëgle bi kurfañ donga leen desa ca face to face ba ku ne ci ñoom ñaar tëkku sa morom te itam ni ko naa la duma naa la daan <laughs> doy na waar si laatit bu baax rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam jant moom ram-ram sox te xëcc bu daggul dikk yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaa ngeen jëf merci beaucoup jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi kaasu café yi dañ koy naan euh, ma ne ko kaasu café yi dañ koy naan également euh, fii nga xamante ni moom moo di ci euh, Thiès Info gi di fi bàyyi ko di law jëm ci yéen ñi nga xamante ni yéen ngi teewlu euh, biir réew biti réew fu ngeen mën a ne ci réew mi ak fu mu a doon ak bitim réew fu mu mën di doon bëggee nañ leen jox leen seen wàcc waaye ni euh, joto envoyé message yëpp dinaa leen dugal ci groupe whatsapp bi mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi kontaane naa leen bu baax a baax a baax café gi dañ koy naan ba sumbu leexu ak moom waaw ci nekk noonu rek la ñuy xelil képp koo xamante yaa ngi ñuy teewlu dinu jox wàcc waay ak dinu bëggee nee leen damay bëgg ngeen dem di recherche youtube euh, Fall Damel revue de presse Fall Damel revue de presse Thiès Info du mois bu ngeen ko defee rek sama revue de presse mooy nekk ci kaw euh, su ko defee ngeen mën koo daal di def li nga xamante ni moom moo di euh, teewlu bu baax a baax a baax a baax mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi café gi nee naa leen dañ koy naan dañuy simbuleexu kenn ku ci nekk ci yéen foo mën a ne ak fu mën di doon rek teel sa kaasu café ñu xool kafe gi de sàppaaral na macha allah waaw waaw maa la ko wax kontaan nañu bëgg nañ bu baax a baax ci képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy teewloo ko bàyyi euh, xel euh, mbokk yi mënul ñàkk rek ñu daal di lim euh, ñeen ñi nga xamante ni ñoom ñoo jotoo def bàyyi seen ay commentaire ci li nga xamante ni moom moo di revue de presse bi comme ni ma leen koy faral di waxee saa su nekk di leen ko commenter rek ngir rek saa su nekk moom man di leen ci boole donc ñu daal di bigee bu baax a baax a baax a baax a baax ki nga xamante ni moo di abu Dabo nee naa leen kenn di ko baax a baax Djibiba également di nuyu bu baax a baax a baax Mabi Guèye sama xarit la moom it maa ngi ca commentaire Papa Diop également euh, Fall Damel Café gi Papa Diop Mali Bamako moom loolu lay commentaire maa ngi koy nuyu bu baax a baax Cheikh Omar Diop maa ngi koy nuyu nee na asalaamaaleykum Fall Damel très bonne journée également Omar Diallo maa ngi kabi gi di ko jox wàcc waayam Pape Omar aussi euh, di nuyu a Adam Kunte bu baax a baax a baax Mor Seck sama xarit la Mor Rafo ñëw na ba fii set si ma vraiment kontaan naa ci trop ma nga dëkk ca ma Fall Damel ma ni vague yëpp yow la ñuy bégee dañ lay teewlu kenn ku ci nekk ci ñoom bala ñoo am jàmm dañoo déglu sa revue de presse ba pare waa biti réew extérieur ña fa nekk itam noonu lan fa nekkee waa italiano kenn ku ci nekk ci ñoom daanaka lépp ci ñoom ñoom xaadim euh, ca ca ca ca ca ca ca États-Unis d'Amérique sama xarit la sama waaye bopp euh, saa su nekk nee nañ <laughs> daal genre comprimé lan ko def ab dose ca Papa Thiaw naa la bu baax a baax a baax Amadou Dieng man kaa nuyu di ka jox wàcc waaye di nuyu Baara Guèye Baara Guèye nee na ma bon gàmm fal Faldammel wax nga dëgg sama gàmm gi gaa ñi nañ ko waajal sam di gii di ñëw la ca pirum ndéré gi ak jàmm ak salaam na ko ñëpp waajal waaw man daal invité naa leen yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp wàccuma kenn na ñëpp ñëpp waajal acca Moustapha Nawel maa ngi koy nuyu bu baax a baax sang bi di la jox sa wàcc waaye di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy commenté ñëpp bàyyiwuma kenn bëgg naa leen jox leen seen wàcc waaye ñi bëgg a dugg ci groupe WhatsApp bi nee naa leen dinaa leen dugal Pape Thion Faye maa ngi koy nii bu baax sama yaay laal sëy ca tubaa bégg naa ko Cheikh Fall Baye Góor alilu euh, alalu borom jamono sëñ Saliou Ka maa ngi kaa biggéey sama yaay Khady Diop ca Barkeel maa ngi koy Darkeel maa koy nii moom it daf may safoo di ma tiitaroo nee ma dammeel bu ma xëyati déglu ma la du ma nekk Ah, ah ki nga xamante ni moom moo di ah, soxna ab sa médecine traditionnelle ki nga xam ne day faj moom it maa ngi koy bëggee di ko jox waa Tivaouane di ko kontaane ah, kenn Idrissa Scouteur maa ngi koy bëggee di nuyu ngalam ah Uruwaay nii maa ngi koy jox waa bu baax a baax di ko kontaane kenn du moom ci man di nuyu Aline Diop Paris la France maa koy bëggee bu baax a baax a baax a baax borom Paris la France sama xarit Mamadou Gueye borom Espagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox waa Tivaouane nuyu naa ñëpp de xanaa bàyyiwuma kenn kenn du mer ay ca mi ngi noonu euh, ku ma fàtte rek ak ku ma fàttewul nuyu naa ñëpp bàyyiwuma kenn waa bégg naa ñëpp mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ña ne ca pirum ndëri ña ne ca gosaas ña ne ca kaolack ndangaan ña ne ca ceeju maatam ba ci Kicoor kaolack ndangaan euh, ndakaaru njaay jal Diop euh, tëngeej ana ngeen ah waa barñi ah waa puut bégg naa leen bégg naa képp ku di ma bàyyi xel seen mbokk seen xarit la faal da mel nee naa leen sët la ci buur siin bàyyi sëriñ Saliou Mbacke jërë ngeen jëf